wàcc ñëw buntu gàllam gis liggéey rek bët yu muuru mais loolu yombul nga foofu. an sa yaay sa papa ñëw nañ déedéet ñëwuñu fii. damel Nas di mën naa ne daf ma abandonné. dafa mel ni mu meloon. Mm-hmm. cekk am muy teint bi. di ko sa turloo. tur papa. papa ana Nafi Mbaye bi la jaraloon yow sa àdduna. tu as conjugué au passé. papa ana Nafi Mbaye bi la gënal man mii di taaw. tu as conjugué au passé.